Thank <laughs> you. Toujours dans votre actu du jour de ce lundi 22 avril 2024 sur la chaîne des grands événements VIP People TV boo tey foofu la ñuy desandi foofu ca FMI ca Washington ginnaaw bi nga xamante ni lii di délégation sénégalaise bi nga xamante ni ngi foon foofu ca réunion jëmale ko ci printemps 2024 bi muy lii nga xamante participé woon ci loolu ginnaaw compte Li, ba nga xamante indi nañ ko jëmale ko ci waxtaan bi ñu amoon diggante ñi nga Fonds monétaire international ak lii di Banque mondiale muy benn délégation boo xamante ki conduire de Ken ku le ministre des finances du budget composé du ministre de l'économie et du plan et de la coopération ak ki nga ministre de l'énergie et du pétrole et des mines le Biram Souleye Diop bi nga du ne dootul li nga ministre secrétariat général du gouvernement bi représenté Sénégal Fofotier réunion statutaire n'est que Fofotier ci printemps bi organisé li nga fonds monétaire international ak li nga xamante banque mondiale Fofotier Washington Madame Moy, Fouki fan ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril deux mille vingt quatre muy démb ci dimanche bi la daal di jeexa

FMI le Fonds monétaire international n'est fi opposant radical jiite woon fi parti bi di Pastef di Ousmane Sonko yan kàddu la yëkkati woon teg ko ci bopp pour nga xamante ni mooy FMI ak Banque mondiale ginnaaw bi nga xamante ni mi ngi nekkoon foofu ci assemblée nationale dañuy déglu ñu vidéo Ousmane Sonko dellu si waat. FMI du au Sénégal les bailleurs bilatéraux duñu au Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêt yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañu lay wax fu bëgg nga ko. pour mu mën leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw buñ la joxee salaam salaam sénégalais yi espère que yéen a ngi si jàmm bu baax vidéo bi waral coowi FMI bi mooy fonds monétaire international bi Ousmane Sonko ba muy yàq seen der tey moo waral gouvernement jomay jaaxar fay bañ demee fële sa Washington DC seeti waa FMI fonds monétaire international di leen leb xaalis ñooñu dàq leen ca xaj vidéo bi waa Pastef dañ doon yàq deru FMI naan seen intérêt moo leen tax a jóg ay sàcc lañ lu ñu dul gis seen bopp duñ la lebal xaalis te bu ñu gisee ni que projet bi leen tegal baaxul duñ la lebal xaalis donc tey xam ngeen ni que amoo leen projet léegi nag wax ji mooy ñoom yónnee nañ seen ministre finance di Cheikh Diba wax na déggul français dafa bëri ay faute te amul projet tegul projet bu baax motax wa waa FMI ne leen dem len ngeen revoir vos copies manam dem len ngeen xolal sen projet bi parce que li doyuñu li motax ñu naan bëgg convaincre réew wala bëgg nax ay jeune wala bëgg jël réew bu mu la jaral di fenal nit wala di wax loo xamante ni wóoru la njëkk nga ko def ci mambay ñaa mu porté la plainte ba nga nar a fay 600 millions ndax ay feni kase nga ñëw defaat ko ci FMI nga xamante ne réew yépp ko jox cër ku ku euh, ku sa réew jëm kanam FMI moo la jàppale FMI ak banque mondiale ku ñu tegul loxo ci monde bi doo dem te ñoom ñoo doon woote rupture te nee nañ dañoo livre solution te dañoo am zircon am gaz am iranium tey ñoom ñooy wër ci FMI ci ginnaaw tuba bi di wër wallu te ñoom ñoo ne rupture bu ñu ñëwee dañuy couper tous les liens avec les français tey ñoom ñoo topp ci ginnaaw français yi di leb xaalis FMI nag image baa ngi nii nee nañ ñun président Macky Sall lañ xam moom lañ wóolu te projet bu ñu mën a tegal ñun wóolu nañ ko moo tax ñoom dañoo mujjee obligé dem ci président Macky Sall di ko ñaan njekk ci njëkk rek nag pour mu wax ak waa FMI pour ñu lebal leen seen xaalis bi président Macky Sall seetal ci ñun rek say doom ngir yàlla war a suuli nga wax ak ñoom ndax ñu mën leen lebal seen xaalis bi mais ah man tiit naa ñoo xamante ne amuñu projet boo ca waxee ba ñu lebal leen xaalis ba suba bu ñu fayul du ñu ne président Macky Sall moo leen waxal ba ñu jox ah lii daal jaxasoo na tee ngeen naa démissionné rek gàcce bu gàtt moo gën gàcce bu gudd ngeen démissionné delloo président Macky Sall postam di président de la république ndax moo leen ci gën a jekk moo leen ëpp expérience gën leen jàng <laughs> sama gars yi lii la ñuy naan liggéeyu nday añub doom dañ doon bëgg a toroxal président Macky Sall far président Macky gën leen yokk garaat am liggéey bu gën seen liggéey instant président Macky Sall amatul benn stress ci sénégalais yi tabaski baa ngi ñëw nit ñi yëkkati nañ leen ci trottoir yi Sénégal metti na gisaguñu projet livre solution ba la ca nekk amaguñu solution pour Sénégal man de waaru naa. keneen keneen saa ñu félicité Sénégal rek man je tremble. dañoo ne FMI ak banque mondiale mësuñu développé réew mësuñu développé réew te duñu mës a mu am ñeneen nag ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne FMI ak banque mondiale dañ ko war a topp man de. ma jotee président Macky Sall lii ci bokk. diir léegi de gars ñun ñu xam ni suñu développement du jaar ci FMI du jaar ci Banque mondiale du jaar ci France tant que loolu dugaluñ ko suñu bopp duñu dem fenn gis nga FMI Banque mondiale kenn keneen saa ñu félicité Sénégal rek man je tremble. dañoo ak Banque mondiale. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo ñaari vidéo yooyu benn bi di trois minutes dix-sept benn bi di quarante deux secondes ñaar yëpp Ousmane Sonko mu ngi ciy yëkkati ay kàddu deuxième bi kii nga xamante ni mooy doomu ndeyam di. Guy Marisanya, nek honorable député à l'Assemblée nationale yëkëti nañ ko tek ko ci nopp askanu Sénégal tek ko ci nopp ñi nga xamanteni ni ay militants yi leen topon par rapport ak sen projet ak sen solution ñi ñoo gëmlo won sénégalais yi que ñoom mën nañu développer Sénégal te soxlawuñu xaalisu FMI soxlawuñu xaalisu li nga xamanteni moy banque mondiale ci lan lañ ko tegoon Ousmane Sonko wax nako néna sa yu déggoon FMI wala fonds monétaire dal di féliciter Sénégal mom day commencer trembler trembler manam moy lan moy lox kan moy lox manam moy kuy tiit luko waral FMI musul développé réew Ousmane Sonko moko wax Guy Marius Sagna ko ci FMI développé réew ay intérêt mo len lal intérêt yoyu Mme du dara lu nga Sénégal muy Ousmane Sonko en tant que Ousmane Sonko bobu en tant qu'opposant, opposant la yalla jël tek ko ci bop li nga xamanteni moy gouvernement Sénégal mu donne le premier ministre sénégalais après 18 jours bi nga xamanteni ki président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye jël na li nga xamanteni moy pouvoir bi je crois que mom ñu dal di koy nommer ce même jour muy le 2 avril par décret du président de la République en tant que premier ministre du Sénégal Marie Teuw ministre secrétaire général directeur du cabinet de King nga le président de la République le 5 avril. Ousmane Sonko ci va daal di former gouvernement donc le 5 avril le 18 avril ça fait 15 jours a ñaari semaine Ousmane Sonko dit ñaari ministre am kii nga xamante ni budget coopération plan qui kii nga meilleur finances, finance budget qui kii nga meilleur énergie. miin ak industrie di biram sooy jóg yóbbu leen foofa ca FMI ak li nga xamante ne mooy banque mondiale pour que ñu lebi xaalis ginnaaw bi ñu eggee dañ leen dem leen ngeen xooli seen copie yéen sénégalais yi laay waxal yéen militant Ousmane Sonko yi laay waxal tey ban réponse ngeen di jox ñaari kàddu yi est-ce que méngoo na est-ce que man mën naa toog tey ma ne diw mii kat mënul développer sama réew diw mii kat moo fi nekk diw mii kat day jël suñu ressource diw mii kat day piller ngeen am ci honorable député toog ci pencum ndaw réew mi. su doon sax Ousmane Sonko waxee ci salon ma d'accord ma ne xëy naa ni ceebam moo neexoon wala ataayam neex mu wax ko mais en tant que honorable député la ko waxee woon mu nekk foofa ca pencum ndaw réew mi mu war a servir une langage de vérité aux Sénégalais war a servir une langage honnête à travers la population sénégalaise par respect ñi nga xamanteni ni voter ko bu mu nekk fofu ci assemblée nationale mais il a tenu un discours bo xamanteni xawma xaw nak ndax manipulation la ndax deug la won wala du deug ndax ci dee limu doon tenir deug la yaakaar naa ni première sortie ñi nga xamanteni ni gouvernement Ousmane Sonko duñu dem fofu ci FMI wala Banque mondiale dañu waron won ci sen livre bobu ñu bindon muy solution jaay ñu projet bi pendant fukki at que li mo meuna doxal Sénégal li moy defal Sénégal je crois que ci lolu ñu waroon sëkkaliku ba Sénégalais gis les premiers premiers actes yoo xamante ni posé nañ xas nañ fi Macky Sall dafa demoon ci Macron yalwaani ji waye ñom dañu dem FMI bi nga xamanteni ñom ñoko xass parce que Macky Sall bi muy yalwaani ji Macron Macky Sall en tant que opposant musul saga Macron musul ne Macron mënul développer rew mais ñom ño ne FMI mënul développer rew sa yu ñu déggé FMI daal di félicité li nga xamanteni moy Sénégal dañuy daal di trembler Guy Mari Sagna feddali donc je crois que l'avenir commence à nous donner raison toujours sur ce nouveau gouvernement de Ousmane Sonko lu ko waral moy li ñu leen doon wax dembu ñi lañ lañ di wax dañ leen koy wax uniquement pour brouiller seen esprit pour que ngeen yóbbu leen au pouvoir mais bés bu ñu egsee ci bopp li nga xamante ne mooy xilaafa bi di république du Sénégal danañ xam ne

fayal li nga xamante ne mooy avion di fay seen hôtel di fay seen lekk ñiy dem foofu ca Washington pour waxtaan li nga xamante ne war na leen ko lebal ci xaalis pour que ñu mën a développer réew en tout cas c'est une question boo xamante ni en tant que sénégalais en tant que le peuple sénégalais Ousmane Sonko leur doit une réponse exacte pour que mu éclaircir la lanterne par rapport à ses propos d'hier ak tey geste bi nga xamante ni bi nga xamante acte bi nga xamante ni tey posé na ko foofu ci FMI en tout cas les sénégalais lui demandent ça par respect parce que soo xasee ba jiite ay nit nag wax dëgg yàlla am loo leen doon wax en tant que opposant tey nga ñëw au pouvoir def le contraire war nga ñëw justifier wu Mais ne carrément bi may wax li li mo taxone ma wax ko tay lu tax ma def li li mo tax ma def ko pour que sénégalais man xam ban position mo ciy deug parce que man jàpp naa ni kat bi nga waxé ni que FMI mënul développer réew soo ko déggee da ngay tremblé man jàppoon na ni lolu deug donc FMI su duggé ci Sénégal manam daf ñuy yàqal lu bari tay yow nak bi dem FMI tay ñu tek la ci bop réew mi est ce que da nga bëgg lu défar Sénégal wala lu yakal Sénégal su dé da nga bëgg défar defar Sénégal nak je crois que waro won dem ci ñi nga xamanteni so déggon sen seen tour ñu féliciter Sénégal rek da ngay daal di tremblé mais heureusement il y a le président de la République Macky Sall vous a sauvé en tout cas moi ay de yoo xamante Ousmane Sonko yëkkati woon ak l'honorable député jëmale ko ci lii nga Boy, Boy FMI ak Banque mondiale moi, comme les may disent que les réalités du pouvoir sont très différentes des réalités yi nga et je crois qu'aujourd'hui, les sénégalais plus particulièrement les militants de Pastef yi nga xamante ne ñoo sur ci réseaux sociaux yi di dingat nit des di saaga ni à chaque fois que Ousmane Sonko def ben déclaration ñu xamal leen que déclaration bi mënul nekk ñi ñu doon saaga je crois que war nañu war delluwaat su réseaux sociaux yi dal di ñuy ak àq jéggaluñu xam ne que ñi lañ doon wax dañ doon anticiper parce que luñu xam la bokku ñoon ci ay marionnettes yo xamante ne da ñuy naan xoolal gauche ñu xol gauche xolal droite ñu xol droite dañuy bokkon ci ñi nga xamante ay républicains lañu lan lañ doon xol luy défendre suñu république muy le Sénégal té luy défendre Sénégal dañ koy tek li nga xamante moy la réalité et cette réalité moy deug je crois que l'avenir a fini pour nous donner a fini par nous donner raison pour lan parce que Ousmane son corps par rapport à ses vidéos d'hier et à l'acte qu'il a posé aujourd'hui en tant que Premier ministre chef du gouvernement, je crois que c'est diamétralement opposé. <laughs>